laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah xalifatu rasuul sallallahu taala rijaal la kamaan la sharif la yeneen la laa ilaaha illallaah laa ilaaha xalifatu rasulullahi sallallahu taala rijal la kamal la sharif la yeneen la góor bu maanoo sore faal njega yaaram góor bu maanoo sore allahu la ilaha illallah la la ilaha illallah mbokk yi yi si daan sn xibaar ñi ngi leen di nuyuwaat di leen xiaré ba tay ñi ngi ci reportage ñi ngi fii barabu ku tedd gi ci Ibrahim Fallam Babil Mouridin ñi fekk ci jeewriñ jo xamne mo bok ci ñi nga ñi nga xamne ne ñoo yore barab bi diko saytu ñi fassiyene waxtaan ak mom ci leen ci ci jëm ci tedd gogu di ci Ibrahim Fallam Babil Mouridine nak fassiyene waxtaan ak ki nga xamne mom moy jeewriñ ji sëñ bi ziar assalamu alaykum salaamaaleykum mustafa Mbodj Moustapha Mbodj laa tudd ah, waaw waaw maag bokki taalibe bi fi ne ñun la sëñ bi jiitaloon ci liggéey bi sëñ Mourou Amine Tafal 1991 lañu fi ñëwoon noonu di ko saytu ba mu agsi fii mu agsi ah noo ngi nuyu bokki taalibe bi yëpp te di leen saar te di leen baloo àq te xam ne kat Serigne Fall kat <coughs> ñëpp la fi nekkal léegi ñëpp la fi nekkal nag ku bëgg a ku bëgg a jariñu ci moom ndax xeebul ab dërëm xeebul aw ñaar xeebul juróom kon su ngeen dikkee am lu ngeen bëgg a xam ci sëriñ bi ah du ñu wees ñu li ñu xam dong la ngeen ci wax ndax koo xam ne fekk fekku la fi waaye fekk na fi sa baay ndax sama baay àndoon ak <coughs> ba ba ba kañ sax si Mourou Moustapha Fall moo ko indiwoon fii mu ne fi ah di liggéey ba mu wàcc liggéey mu teg ñu indi fi sama baay bi ñuy wax suñu bàcc suñu Massamba Ndiaye ma liggéey la ma sëriñ bi indi. ñu fas yéene nekkal sëñ bi suñu giir gu dund noo leen nuyu te di leen siyaare te di bala xaq ñëpp di ñaan nag suñu bi nga xam ne moo yor ndimbal tey ak la ak lu ëllëg yàlla ñu di yàlla dimbali ñëpp ndax nii am nañu bëgg am nañ pas-pas am nañu yaakaar liñ fi yaakaar lépp nag mi ngi fi waaye lu mu ci doon lu ne nañ nañ ko boole ab yar ak teggin suñu jëm sëñ bi daal nañ xam ne lañ jëm nañ am yar ami teggin sangu farata baax na boole ko sang sangu farata ak sab xol ak sang sang sa xol ba mu set te fas yéene jublu sëñ bi kon nanu fas yéene bëgg gi nu bëgg sëñ bi loolu mënu koy may nanu fas yéene suñu nañ sang farata ba mu set jàpp jàpp xi benn benn fas yéene jublu sëriñ bi te ko ñaan ak wér ak yiw ak doole doole tey ak ëllëg ndimbalu tey ak lu ak lu ëllëg ban mën a jàkku ndigal jàkku njël nekkal fi sëriñ bi noo ngi leen nuyu yéen bokk taal bi di leen xam képp koo xam ne dégg nga suñu kàddu gi kët li ñu ko waxee mooy fii ñu fii ñu ne fi sëriñ bi ku fi jëm si ku ne na nga jiital ab yar ak i teggin ndax loolu rek ku fi ku bëgg fi ñëw ci bëgg fi dara loolu ngay gànnaayoo ndax leneen lu mu doon lu sëñ bi gisut loolu xóolul loola limité la ne mooy ab ak teggin loo man di loo man di yor ak loo man di indi ci boolewoo ci ab yar ak teggin tamit njëriñ li du bari noonu waaye loo loo ñàkk indi tamit ci indi ab yar ak teggin loo bëgg sëñ bi da nga ko mën am kon nag noonu maase ñun ñëpp kenn ku ci ne boo jëm sëñ bi na nga am yar ami teggin saa soo dikkee soo dikkee soo soo soo dugg si barab ne bisimilah rahmaani rahiim fas yéene jariñu fas yéene jariñe ñaan sag bëgg yaa ko xam nga xam ne loolu mooy buntu lii tax jariñu lépp looy def ci fa ñaanti fa siine jariñu fa siine jariñi da nga jariñu da nga jariñee kon loolu daal maam noo koy dénk bokki taal bi yëpp di xam ne sëñ moom njariñul tey la ak lu ëllëg lu fi waaye amul ci yow ci sëñ sëñ bi ci yow yaa ko sàkkut waaye sëñ moom am na njariñul tey ak lu ëllëg kon nanu maase amul jar am teggin te xam ne li li ñu bëgg ak li ñu wut fi sëñ bi rek sëñ bi yaa ko keneen yore ku dul sëñ bi nan xam bu ñu jëm jëm bi nan xam niñ fi dikkee suñu maasee xam lool rek bu soobee yàlla li li li ñu doon jàpp ndal lool kon nag noo ngi leen di doolee dénk di suñu bopp xam leen adduna moom lefi na rek mooy ak njub ab ak i ku fu waay ne boo ko nekkee la ngay la ngay sabab man saa borom mën na defal ndimbalu tey ak lu ëllëg yàlla na ko saa defal ci dara ji ci ndimbal cheikh fall ak yërmandeem yalla ñu defal ak wër def xeetal ci bopam te may nu jub koo xam ne dañuy ndigal de bàyyi téré li nag képp ko fu ko way nek nek ko fa rafé nañ jott ci la ngay wut danga ko am kon ñu yeen yi nga xam yéen fi ñëw rek na ngeen xam loolu te diko xamal nit ñi fu way jëm fu ne muy jàkka muy juma muy jëm ci gaay yu baax yi na nga jitt ab yar ak teggin rek sa so ko defee la nga bëgg fofu dang ko mëna am waye bo diké mel mel wenen melaw bëgg tak lool la nga la nga bëgg do ko amé nang ko bëggé waaw ab yar ak sëñ bi dal mom li gaa jaram yar ab yar ak teggin waaw nanu fa séen sa suñu jëmee señ bi wala ñu dëkk jëm ci dëkk señ tuba bi nanu ma nanu gàddu galan yo lool da xamné ne rek fi tax a jariñu waaw man ñu xam njabootu maam Cheikh Fall te fii ñëw ah ñi ci xam di ñi ma ciy dégg seen seen seen tur sax laay wax mooy sëñ Modou Moustapha sëñ sëñ Fallou Fall sëñ Modou Moustapha sëñ Bassirou Fall sëñ sëñ Mortala sëñ Ablaye Fall Ndar ñeneen ñi ñi tege ñi ñi des nag ñi tege loolu am naa ci mbént waaye ñooñu moom noonu lañ tegaloo woon ñoom ñoo ñi ñi mag ci waa kër sëñ bi sëñ Fallou Fall moog sëñ Ablaye Fall Ndar ñoo bokk waajur ginnaaw suñ Fallu Fall suñ Mudu Musaa Fall moo fi nekkoon xalifa ginnaaw suñ Mudu Musaa suñ Basiiru moom jot a toog xalifa ginnaaw suñ Basiiru suñ Mortala suñ Mortala moo toogoon xalifa ginnaaw suñ Mortala suñ Ablaay Fall Ndar ginnaaw suñ Ablaay Fall Ndar suñ Asan ginnaaw suñ Asan suñ Abdu Sakoor ginnaaw suñ Abdu Sakoor suñ Mudu moo fi toog xalifa ginnaaw suñ Mudu suñ Seex Jëmb noo ngi ñaan ci ndimbal sëriñ bi ak ak ak yërmaaneem jëm jooy di suñ Jëmb Faal yàlla na fi yàgg lool te wér te yokk te yokk yoon wi yàlla na fi wér yàlla na fi yàgg te wér te yokk te yokk yoon wi ci dara ji Seex Ibrahima Faal mi liggéeyal mu yàgg fi lool te yokk yoonu maam wi lool te ànd ko mbokk taal bi yëpp jàggeen jëf njàngalem Seex Faal moom amutoon jeneen daara ju loolu ànd ak mag ni di leen digël di leen tere loolu la loolu la ànd woon nag ñoom mag ñi tamit koo ci dégg waaye daa daa dana am ci kër ci ci dëkk bi sax ngir gone bala ñu ko mën a xamal dara daa jë war a jëkk xam alxuraan ba ba ba am xelam génn mu doog a dem liggéeyi waaye meen njàng nag mu ne muy xam mu dul moom daara daara Seera Faal ji la ñi moom dañoo dañoo xam xëri sëñ ba nga xam ku ci ne sa doom ne junet bu jàngul ak bu jàngee lépp nga bëgg sëñ bi waaw ndax xam nañu moom sëñ bi lu fi ne ci moom dana aaru dana defaru kon nag doo doo bëgg a defaru mbaa nga bëgg ku defar kuñ defar te gis ko te te doo ko fa yóbbu ku bëggoon mag ñi bëggoon dara xamee seeni doom bañ ne jonet lañ koy yóbbu daara sëñ bi waaw ba ci man mii bi wax bama yéen ba ma dem ba xamee ba ma nangam dama sama ba jox sëñ mooy waaw Maar ze, ze, ze, ze, ze zijn anxieus. Laat maar zo'n zin bij. Maar nek gewoon. ba ma dem tey mu yóbbu ma ci daal tarbiya may liggéey ba sunu borom def ndimbal ci man ñu jot ngërëmal sëriñ bi ba ma wàcc tey sama baay bàyyi koy mu indi ma fii loolu daal mooy li nga xam ci sëriñ bi waaw sëriñ bi nag lépp lu baax lu ne mi ngi fi moom loo fi taamu xam lu ne man ko fay xam ndax lépp ngi ci biir ndax ñi fi ñi fi xam ñi fi am na ñoo xam ne daal fi xam sëñ bi defaral leen ko baaxee leen ko xam ne ëllëg des na ko jariñoo waaye soo bëggee lu baax daal moom sëñ bi ak njabootam a ngi fi yoon waa ngi fi soo yàggee wuji rek da gis loo xam si xam nga ni lii ak yokk la waaye ak loraa nga amu ca kon nag noonu maa sa xam joxaar suñu bopp sëñ bi te xam ne kët sëñ moom du ñu dugal fu gënul ci ñun du gën du ñu dugal tamit fu ñu dul defaroo ndigal lii ñuy jëfee tamit ak defaroo ci nekk koo xam si ku dem ku ne gis ko kon nag noonu maase xam ne moom sëñ bi gën ci ñun suñuy ndey moo gën ci ñun baay baay bàyyi ba mu fab suñu lépp rek jox sëriñ bi waaw. xibaar.com reportage bi lañu doon amal ak yeen fi nga xamni mom moy mooy xabru maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine ñu fekkon ci jëwriñ ji nga xamni mom mo nekk ci barab bi diko saytu and ko mbokki taalibe yi ñi nga xamni ñom la andal dégg ngeen li nga xamni wax nga ko denkané bi nga xamni wax nako ko te loolu lépp nag moom la fofu la Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine jaaroon lepp rek ngir liggéeyal ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul yaakaar na buñu jaaré fofu donte du yomb sax wande lepp luñu bëgg ci aduna man nañu ko am mbokki ñi nga sant ñepp di gëreem ñepp di sant képp ko xamni yaangi yaa ngi doon bàyyi xel sn xibaar.com wante ma ngi sant sama équipe technique bi nga xam ne moom laa àndaloon muy Cheikh Fall mu nekkoon ci caméra bi réalisation bi Babacar bo di sant soxna Ndak Mbacke ak mboolem équipe boo xam ne yaa ngi nekk biir sn xibaar point com mbokk leen di daje beneen jamono ak beneen reportage biir biir sn xibaar point ngeen topp ñu ba ci kanam jërë ngeen jëf